mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara di ndokkeel mbokk yi yépp di sof sama nuyo ci nuyoo sëriñ Xaadim bi mu nuyu kilifa yépp maa ngi jokk ci loolu mu doon wax di nuyu kilifa yooyu mu tudd yépp di ndokkeel sama bopp di leen ndokkeel ci weer wi ñu nekk ak barab bi yaakaar yu bari ñoo ci daje yàlla na def suñu borom def yaakaar yépp mu dëggu ci noonu tomb bi mu wax ne moom lañ bëgg ñu waxtaan ci loolu la kilifa yi sàkku xëy na gis ne mbirum denc soxna lu jàppandi la waaye lu yomb la lu tasaaroo la ndax dañ koy dund fépp waaye nag mat naa waxtaane ndax léeg-léeg ñu dégg ci lu ciy xew lu ci bokkul xëy na loolu moo doon jublu kilifa yi bëgg ñu waxtaan ci nafaraat ko euh, fàttaliwaat nit ñi liñ jàpp ne lu ci mat fàttale la ñu ngi tàmbali kon di wax ne danañ leeral denc soxna moomu ak euh, at atteem ci lislaam lu mu doon raayam mooy luñ ci jublu ñii dañ ci soxna solo si mu am ci wàllu ruux am ko ci wàllu jikko am ko ci wàllu société bi am ko ci wàllu koom-koom incha allah danañ ko tënk waxtaane it ay ponkam ak jeexit yi nga xam ne bu sëy amee jeexit yooyu dana ca topp xëy na ak tënk lay doon ndax waxtu wi waaye nii ko sëriñ Xaadim wax bu ñu noppee du ñàkk ci kilifa yi ñoo xam ne danañ ci am lu ñu jubbanti mbaa luñ ci li gën ko leeral waaye incha allah taala danañ jéem a tënk sunu kem kàttan denc soxna ci pas-pas yi la bokk xam ngeen ne diine dafa bari ay pas-pas yu ci am te jëm ci mbooloo bi pas-pas yi jëflante yi am sëy ci la bokk waaye mën nañu wax ne mooy pas-pas bi gën a màgg ci pas-pas yi ndax borom bi mi ngi ko tuddee miithaqan ghaliza kon lu rëy la ndax li mu làmboo ak li ci aju pas-pas bu mat a fonk la ndax la cay taratu bu baaxee ak la cay taratu su saa yu ne fas nañ ab say diggante diw ak diw rek bari na yu ci topp yoo xam ne bu fekkee ne fas fa bu baaxul bakkaar yu bari ak mbir yu bari mën na caa juddoo te ña laal ñépp dana leen topp kon mat na bàyyi xel mat naa xam kon pas-pas la boo xam ne diggante góor ak jigéen lañ koy def boo xam ne buñ ca noppee day tax ñoom ñaar kenn ku ne mën a jot ci sa moroom ci anam goo xam ne dañ koy bànneexu te muy loon lu dagan waaye pas-pas la boo xam ne day jur ak mbokk di jur ak jote day sos ak mbokk ci diggante ñi ñu ko fas ak ñi leen wër waaye day waralit ay euh, worma joo xam ne dañ koy war a sàmm atteem ci lislaam nag dañuy wax ne bi sifatin amma sëy dañ koo sox dañoo sopp ci ab jullit muy dañ ci soxna lislaam diine la joo xam ne xamut làbbiwu xamut mën a denc soxna ci anam yépp ba noppi toog jàpp sa boo ko defee te jublu ci ne ak baax la lislaam du ko jàppee baax diine denc soxna ndax denc soxna mooy sunna si yonent yi alayhim salaatu wassalaam wa laqad arsalnaa rusulan min qablik wa ja'alnaa lahum azwaajan wa dhurriyya loolu suñu borom moo ko wax yonent bi alayhi ko wax ne ko yabaloon naa ay ndaw yu la jiitu waaye ay nit lañ ñoo xam ne defaloon naa leen ñu am ay soxna doon am ay jabar kon ci sunna yonent bi sunna si yonent yi la bokk suñu borom santaane ñuy denc soxna kon ndigal lu yàlla joxe la def ko moo gën ñàkk ko def moo tax njuumte la ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne bokk na ci ak mat ak sotti ñàkk dañ ñàkk yor soxna ak manqué la ci ab jullit bu fekkee ne li waral na ci moom mi ngi ci moom su deñ jul soxna dafa manqué kon ci pas-pas yi matal doomu aadama la bokk foofu la solom tàmbalee nekk lu ñu sopp ci cosaan waaye nag léeg-léeg mu weesu sopp doon farata am na ci nit ñoo xam ne denc soxna farata ci ñoom koo xam ne am nga loo denc soxna am loo ko mën a yore te ragal ne boo dencut soxna fitna mën naa dal sa bopp ba nga def lu dul noonu kooko denc soxna farata ci moom du sañ a toog di leneen di ko dal mu di ko jiiñ ak dogal wala leneen bu baax dañ koy wax ne ko denc soxna ngir sëñe sa bopp ngir aar sa bopp waaye dana nekk lu ñu sib dana nekkit lu xaraam dana yamit ci dagan rek nga xam ne mën nga koo def bu la neexee def bu la neexee bàyyi dana xaraam ci koo xam ne dafa am gàllankoor ci yor soxna ci benn man koo dundal wala moom ci boppam lii soxna aajowoo moom moo ko mataliwut jumtuwaay yooyu te leer na ko ne bu tëkkut soxna it du ko wàññi dara kooku mooy koo xam ne bu takkee soxna lor ko te bu tëkkut it du lor kooku dafa xaram ci moom muy takk soxna ndax ñàkk takk soxna du ko wàññi dara te bu takkee mu lor te nit nag du lor boppam du lor keneen ci soxna danañ ko sib ci koo xam ne yaakaaru ci njaboot ragalut ne bu tëkkut soxna dana am nattu xelam it nekkut ci wàllu googu ba di ko gàllankoor ci ak topp yàlla maanaam koo xam ne daal xëy na ñàkk takkam moo gën ci moom mu takk kooku dañ koy sib ci moom am nag koo xam ne moom dagan na mu takk soxna mooy koo xam ne amul soxla ci soxna yaakaaru ja doom nga xam ne bu ko takku daal du ko wàññi dara waaye bu ko takkee du ko jariñ dara kooku takkum soxna day dagan ci moom rek bu ko neexee daf ko kon kon ki mu xaram daal kenn la mooy kii lottu ci li soxna laaj te leer na ko ne bu dencuti di du ko wàññi dara atte yooyu yëpp nag nit ñi ku ne ay xool atte ban moo la ci dal ndax ci ñu farata ci ñoom nga bokk boobaa demal takki soxna farat la ci yow boo ko deful am bàkkaar wala danga bokk ci ñi nga xam ne dañ koo sopp ci ñoom it lu ñu sopp lu ne yiw la boo ci yéenee jaamu yàlla am ci tuyaaba yu bari wala da bokk ci ñi ñu ko sib ci moom wala nga bokk ci ñi mu xaram ci moom loolu nit ki mu at boppam liy tax ñuy denc soxna nag ca dëgg-dëgg yu bari la waaye mën nañ koo delloo ci ñaari mbir ñaari mbir mooy tax ñu denc soxna bu njëkk bi mooy am njaboot am am njaboot moo tax suñu borom sant ñu ñuy denc soxna wa jaala lakum min anfusikum azwaaja wa jaala lakum min azwaajikum wa jaala lakum min azwaajikum baniina wa xafada suñu borom moo leen sàkkal ci seeni soxna ay doom ak i sët kon dafa mel ne suñu boroom moo jublu ñuy takk soxna ngir di ca ami njaboot jublu googu gu mat a bàyyi xel la ci jamono ji nga xam ne yeneen xalaat ak yeneen gis-gis moo tàmbulee siiw ci mel ne ay njaboot moom wari su ca bëgg lu bari ak lay yi mën a joxe ci diine lislaam dafa bëgg nit ñi di am ay soxna yu bari di am ay doom yu bari lislaam dafa bëgg ñuy am ay njaboot yu bari te nag ci ak nite la bokk bëgg njaboot ku ngeen gis bëggul njaboot bu ko yëgee bu ko yëgut daa di waaye nit ku sotti bokk na ci yi ñu koy xàmmee ne sotti na day bëgg njaboot zuyina linnaasi xubbu shahawaat min an nisaai wal baniin ci yàlla bindaa moo ñaale ci nit ñi ci la bokk kon ñàkk koo bëgg di ko moytu dañuy jàpp ni ak manqué la ci nit ki su ko yëgee ak bu ko waaye ku mat da bëgg njaboot ndax dafa bari yu ci aju bari ay tuyaaba yu ci nekk bari ay yiw yu ci yu ci nekk kon ku ko bañ rek benn da nga xamut te loolu manqué la wala da nga wér lii firndeel ne denc soxna am ay njaboot moo tax ñu santaane ko yonent bi alayhi salaam moo ko waxoon kon na ci lim daan wax ne na ngeen ci jigéen joo xam ne ñaari melo yi dana daje ci moom na nekk waduud na nekk waluud tazawwaju al waduud al waluud fa inni mukaathirum bikumul umama yawmal qiyaama wala mukaathirum bikumul ambiya yawmal qiyaama yonentu neen denc leen jigéen joo xam ne neex naa gis ku neex a gis mooy koo xam ne dañ koy bëgg muy waduud waaye denc leen kuy jur ay doom wadud wadud la wax baat bi ñu xam arab xam nañ ne siiratu mubalaxa jubluwuñ ci kuy am benn doom wala ñaar mu jeex walud kuy jur doom yu bari ndax nee na li tax ma bëgg ngeen ci soxna yoo xam ne dañuy neex a gis ba noppi di am doom yu bari su yowmal xiyaamee xeet yépp teew ak seen njiit dama bëgg man maag sama xeet ñu ëpp fa fa inni mukaathirum bikum al umam wala fa inni mukaafirum bikum al anbiya bu yonent yëpp tewee kenn ku ànd ak sa xeet dama bëgg su boobaa xee sama xeet ëpp ci xeet yi ndax ku la ëppalee ak njaboot ëppalut yàlla yonent bu ñëw jamono wala kilifa bu ñëkk jamono di woote ña la topp lépp lu ñu def ci lu baax sa wàll sa wàll nga kon ñi nga woo ñu wuy lu ñu gën a bare yow aji woote ji sa tuyaaba di yokk kon yonent bi tuyaaba ju bari la bëgg ba tax mu bëgg xeetu xeetu bari tax mu santaane nañuy takk ay soxna yoo xam ne dañuy jur ay doom yu bari waxoon na keneen ne ko ñeneen nit ci beneen xadis boo xam ne maanaam yi sorewut ak moomu tanaa kaxu tanaa salu na ngeen denc soxna tey juri doom fa inni ubaahi bikumul umam damay puukaréewu ak yeneen xeet yi bu ñu teewee bu ëllëgee ma mën a wax ne du ma seen moroom maa leen ëpp njaboot te loolu ngeen di denc ay soxna di am ay njaboot yu bari moom a koy may loolu la gaa ñu baax yépp it xamoon fonk njaboot daan ko ñaan xam ngeen ne yonent yàlla Zakariya bi ñu wax naan fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya booba Zakariya mag la waaye xam na solo si doom am njaboot am tax ñu bëgg ko ndax risaala bi ko yàlla dénk te mu gis ne bàyyee ko sa ndono loo xam ne ayibam sa ayibam li koy bégloo mooy sa mbir yokku loolu am solo la moo gën bàyyee ko jàmbur yoo xam ne bu yàqoo yee dañ naan seen yoon newu ci ndax jotewuñoo yow lu am solo kon loolu moo taxoon yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam daan ko ñaan daan ko sàkku ci seen borom gaa ñu baax ñépp daan ko sàkku sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu waxoon na ne boromam la doon deyaleel ne ko hablii bi jaahihi waluudam munjiba talidu aarifan aliya martaba loolu rek doyoon na ñu xam am solo loolu hablii bi jaahihi waluudam munjiba talidu aarifan aliya martaba maa ngi lay ñaan nga may ma dëkkandoo joo xam ne waluud lay doon noonu ko xadis bi waxee kuy jur doom yu bari waaye nag mun jiba mun munjiba al injab ak wilaada wuute nañ al injab mooy al maratul munjiba mooy man taati bi waladin najib koo xam ne doom yi nga am ñëpp ñu ràññiku ñu yéeme la ñuy doon ci baax loolu mooy injab du jigéen ñëpp koy def wilaada la jigéen ñëpp di def waaye am na ci ñoom ñoo xam ne nag injab la ñuy def kooku nag dañ koy tànnal am na ay waajtaay loolu dañ ci dégg ne waxuñ ne na doom yu bari ak nuñ mën a mel waaye bari gu baax na bari te jàpp moo tax ñuy wax kon sëriñ bi firndeel na ko ne walu dan mun jiba koo xam ne nuy mel mooy talidu aarifan aliya martaba doom ju mu am koo xam yàlla lay doon ku kawe daraja lay kon njaboot soxna si gaa yu baax yëpp woon gaa ñu baax yëpp ñu bëgg am njaboot ndax jaamukaay yàlla la kon nit ku baax day bëgg njaboot loolu nag bu ñu koy wax jamono ji nga xam ne kàddu yi ñuy dégg ci ëpp mooy di xiir nit ñi ci luy wàññi seenum njur ak naan jamono ji dafa naqari dafa xat ñi ci tane mooy ñi laye ne day tax doo leen mën a yar loolu ay wax la waaye ca dëgg-dëgg bare waa nag ku yor jaboot bu sakkan te góor-góor la ci ba ñëpp jaar yoon gis ku yor benn doom mu tëb mbir ñi yitte la ak pas-pas waaye wax ne suñu baree doo leen mën a dara wax ji yàqu na wax ne ñu baree doo leen mën a dundal ñaaw njort ci sa borom la subhanahu wa taala borom bi wax ne wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala llaahi rizquha ku gëm wax jooju doone su ma amee doom damay bañ du mën a du lekk am na ku doon wax nan sawaru am doom muy añ du reer ku gëm yàlla du wax loolu ku doyloo yàlla xam ne yàlla mi la bind moo bind li ngay dund ci suuf xiif yi am ci kaw suuf du ne nit ñi dañoo ëpp li fi nekk xekk ma suñ borom jombante na ak loolu li ñuy wax suu tawsiya seddale bu ñaaw mooy tax nit di xiif waaye barab bu nekk yàlla la mu fa def doy nañu fa ne doomu aadama nag moo jubadi moo xam xamadi boppam ba tax muy def luy tax du jot ci xewel yi mbaa boog bu ci jotee di ko yàq waaye bu mbir yi jaaroon yoon li yàlla wàcce ci kaw suuf lu mu wàcce ci nit ci suuf rek ci ay jaboot wàcce na fi lu toll noonu ci lu mën a dundi te it doomu adama du faatu te fekk wërsëgam des dara kon bu ñu lay ne économie moo tax ñu bëgg nit ñi di wàññi seenum jur te wóorul nag mbokk yi xew-xew yi am ci àdduna azamaat yi am ay téeméeri nit di deewandoo ci benn bis xeet wu yemale am juram bu ko jaayee jooju dalee moom problème jafe te gis nañ ko ci réew yoo xam ne seen politique moo doon tënk seenum njur ci ñaar wala dem nañ ba xeet ba màgg ñuy xemmem loo nit ñu ci ami doom bay wut ay indemnité yoo xam ne doom joo yokk ci sa famille ñu ñu jox la ko loolu day firndeel ne li yàlla tëral ku ko weddi safaan ngay gis ala ya'lamu man xalaq yàlla mu ñu bind kon lu mu santaane nañ ko def rek baax kon bu ñu laytoo ne bu njaboot gi baree duñ leen mën a yor yoruñ leen biñ newee yoruñ leen yàlla yor nit te waxoon na it ñi daan ragal ñi daan rey seeni doom ngir ragalu ñàkk wala taqtulu awlaadakum minim laaxin ñàkk ba noppi nahnu narzuqukum wa iyyaakum wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum yow mi ñàkk ba ne du ma am doom yàlla nee na wutali doom bu rey sa doom ngir ñàkk ndax yow yàlla yow waaye maa la yor doom jëy ñëwit maa ko yor ki am ba noppi nag jàpp ne su amee ak njaboot ba wóotuwut am ama wàññiku yàlla ne ko jërul ragal kii ñëw maa ko yor ñi ma la yor yow kon foofu baax na mbokk yi ñu xam ne kàddu yooyu du jib di soññ nit ñi ci wàññi seenum njur du kàddu yi defar diine du defar adduna yi ndax li yàlla di programme ñu kenn xamul te bis bu yàlla sàkk ngeen dégg suuf yëngu fen rey mbooloo si burum yi rek ñaata lay rey par suñ ca boolee ñu itam li ñu am ci doom ñu wàññi ko danañ xëy xëy kër yi néew lool ni mu amee ci ay barab xet wu manqué ba ñu yëg ko di di di di wuti ay nit feneen ñun ñi tënku ci yàlla bëgg na ñaaree ci ñun la ñëw di ñu wut si bu ñu fexee bañ mel na ñoom nag su boobaa loolu dara génn kon jublu gi njëkk ci takk soxna nañu xam ne ngir am njaboot la kon ku ciy denc soxna na nga fas ne bëgg njaboot boo xam ne dañ fi des di dund diine di ko dundal bu yomal xiyaamee ma mën a bokk ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaam day puukarewu ci ñoom maa tax xeet yu yokk maa tax xeet yu bari ba tax yonent bi di ndamu ci kanam yonent yi ak kanam xeet yi fexee la bokk ci ñooñu kon amal yéene ci ami njaboot bu sa yéene seetlee te ngay góorgóorlu kàttan doom bi ñëw la ca war yàlla dina ko def loolu yow fugsee nag defoo li la war ba say doom lekkuñ bu ko jiñ yàlla yaa gàttañ waaye sunu borom moom fi mu jaaralu ku fa jaar li mu digg dana ko def ndax moom laa yuxliful miiaad ñaareelu jubluwaay ci dañ ci soxna mooy fegu fegu doomu aadama yàlla da koo mooñaane yu bari lu koy tudd ay xaraïs ni muy xiifee di soxla ñam di soxla ndox di bëgg nelaw di sox sax léeg-léeg sax mu soxlaa sëqat noonu la soxlaa dend jigéen dend ak dëkkandoo bu jigéen soxla boo xam ne bu fekkee ne li war a na ci moom ci unité mi ngi ci dana ko gàllankoor bu fekkee ne wutalu ko yoon ci denc soxna nag mooy bunt bi yàlla ubbi ngir bëgg nit ñi di ci fego yàlla digg ci lu bari képp koo xam ne da ngaa jóg denc soxna ngir bëgg a fegu bañ a tàbbi ci ab safaan yonent bi alayhi salaam nee na bokk nga ci ñett ñi nga xam ne sunu boroom moo gàddu ne dana leen dimbali ñett yonent bi alayhi salaam nee sunu borom moo gàddu seen ndimbal aji jóg yoon gàddu nga naayam di jihaat yoon yàlla ngir tasaare diine ak ba ak moomeel bi am ak njaam bi am koo xam ne dañ koo moom muy liggéey di fay ngir mën a jot boppam koo xam ne dafa denc soxna ngir bëgg a feebu thalathatun xaqun ala llahi awnuhum almujaahidu fi sabilillah ada wannaakixu yuridu l kon ku denc soxna te jublu ca febu jublu ci aar sa bopp ba doo mooy yàlla doo ruur tooli jàmbur kooku sunu borom nee na ma gàddu sa ndigal yonent bi alayhi salaam yàgg na ca soññee wax ne kaaraange la day fekk nit daan wax ndaw ñi xale yu góor yi ne leen ku ci mën a denc soxna na nga denc soxna man istataa minkumul baata fal yatazawaj ndax ci la nit ki di gën a sàmmi bëtam ci lay gën a sàmmi boppam koo xam ne mënu ko nag nga bari looy woor kon gis nañ ne takkum soxna dana fekk nit ki ba bëtam du xool lu nga toxool ab tànkam du ko séqi jëmee ko fu mu ko war su aajo woo ci wàllu googu dana faj aajoom ba noppi nag am ci yiw am ci tuyaab waaye su denc soxna ba aajo jooju jàq ko ci biiram benn mu nar naq boppam naq goo xam ne mën na koo jural ay wéradi ci wàllu bakkanam wala boog mu jóg jubadi lenn jëmu ci lenn baaxu ci kon dañ ci soxna dana dimbali nit ki mu fegu te gis nga yonent bi alayhi salaam ndaw ñi la waxoon mag ñi sunu mag ñu baax ñi loolu seen sunna woon mooy ñoom dañ daan teel a sampal kër seeni njaboot ndax mu fegu ndax mu aaru waaye ndax mu am jom bare waa na ku ngeen gis mu yàqu daa teelutoo sama kër rek walla mu dem di am ba yëg boppam bu teeloon takk soxna du ko tal ñoom bu ndaw la juddoo rek bu matee jàng ñu jàngal ko alxuraanu karim jàngal ko xam-xam jàngal ko liggéey daa koy sambal kër daa koy gàll yoo xam ne nag su bëggoon a dafa safaanu da ko jafe ndax ndaw loo xam ne tey yëg na ni am na ñu ne ci ginnaaw moo leen war a dundal bu ñu woppee moo leen war a faj lépp moo leen ko gàddul kooku dal na tal leneen lu dul yorub xaalis dem di ko foye kon mu mel ni ci politique yu rafet yi mag ñi doon def ngir sàmm seen njaboot ci la bokk di wëreelu di am xaalis amut soxna amut dara te am xaalis kooku bu juba di wut yàlla inna shabaaba wal faraaga wal jida mafsadatun lil mar'i ayu mafsada nit ki bu amee jot yor dara di gone bu yàquwut yàlla waaye buntu yàqu yëpp daje na ci kanamam ubbi na ci kanamam kon bokk na ci li mag ngi doon def teel a dencal soxna seen njaboot ngir ñu aaru waaye ngir ñu am jabet ndax ku teel a am koo yilif te bëgg kilifteef ko sax faw nga taxaw ci moom bu amee soxla nga taxaw ci waaye boo yilifee nit kilifteef goo xam ne mënula ko dara kooko yebeel da yomb seen diggante loolu taxoon na ndaw ñi daan am jom waaye it tax na nit ñu ñu ñu sottal lu rëy bu gàtt kilifa yu bari ci ñu xam fii ba ñuy toj ay dëkk di di taxawal ay daara yilif mbooloo booba kenn amu ci daanaka ñeent fukki at ñu am booba ñu néew lañ léegi nag nit day am ñeent fukki at ak nangam jàppe boppam gone du yilif dara naan damay lijjanti lu ma takki soxla sampagut kër waxin te ñu daan sampal kër ku yées ñaar fukki at ko jaaralee fi ko war a jaarale taxaw ko ni ko war a taxaw loolu ndimbal la woon ñu bari ndax dañuy wax ne ndaw të day raw ndaw të day raw ci li tax mu raw nag nga gaaw teg ko ci zuruuf yoo xam ne du du ko mën a jéggi du tal leneen waaye bu gimmee di am li muy am saña dem fenn ko te te dara néew ci ginnaawam li muy am xalaatut ne am na ñenn ñoo xam ne moo leen war a nangam lu mu am mën na ko sànq lu mu am mën na ko yàq te su koy yàq na ñaareel mën naa doon fu ne kon euh, wax jooju yonent bi alayhi salaam waxoon ne ndaw ñi ku ci mën a denc soxna mag ñi déggoon nañ ko waaye lu ñu war a roy ci jamono juñ toll. kon fexe ba jaboot yi ñu di leen teel a sampal kër xëy na ci jigéen lañuy wax naan teel koo sampal kër teel a maye jigéen nangam nangam waaye góor moom gu teel a samp kër mag ngi dañ daan wax ne ñett dee ko def dee ko teel a def di ko rëcc samp kër ci la bokkoon ak sol mu gudd yooyu kenn du ko teela a def di ko rëcc kon am na solo ñu xam ne ci yar bi la bokk yi ñu yare njaboot ñi waaye bu dul loolu nag ni jamono ubbikoo ko ni moyens yi bare ak pexe yi ni ñu bare gone mën na cee gimmi rek tàmbali am lu bari bu amul lenn lu ko tënk di ko bàyyi xool xol ginnaawam njaaxum gune mën na ko def kon lu ñu war a dekkalaat di gumd la te gaa ñu baax ñi loolu lañ daan ñaan moom la ñuy dégg sëriñ bi wax wa zawjatan saalihatan tu'inu ala tuqa wal birri yaa mu'in soxna dañ koy sàkku ngir di ko fegoo soxna su yiw day dimbuleen nit ki ci mu ragal yàlla bu naroon def ab safaan sax soxna saa koy fàmm wax ak moom laa biire kon ku mel noonu ndimbal la ci jamono ju naqari ju mett ji nga xam ne ku ci beret wéyeg si bopp rek mën ngaa def ab safaan kon teel a am wéttal woo xam ne boo naree def lu dul noonu rek mu fàttali la yaay kan fàttali la sa borom fàttali la say warteef ak li topp sa ginnaaw kon ñaari jublu yooyu mooy yi gën a mag yi tax ñu denc soxna denc soxna nag am na solo mbokk yi ndax yàllaa ko tëral ngir doomu aadama yi des ci àdduna ba ba muy soob yàlla yomboon na suñu boroom ni mu sàkke malaaka yi mu sàkke ni doomu aadama yi xam ngeen malaaka menn malaaka jurut kenn te malaaka yi ñoo ëpp mbindee ñoo ëpp doomu yi yàlla leen sàkk manoon naa sàkk doomu aadama noonu kenn ku ne mu sàkkal la boppam doo am ndey doom bay waaye yàlla jublu ñu ànd di ñenn ñi du jóge ci ñenn ñi ñaari nit la sàkkoon wala sax kenn la sàkk génn ca keneen ñooñe ñoo menn meññ ci àdduna yëpp alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa loolu sunu borom su subhaanahu wa taala wane na ne kon moo jublu ñuy ci dencante la bëgg doomu aadama yi di yokkoo ba ba muy sob yàlla am na solo moom denc soxna ndax ak jaamu yàlla la goo xam ne nit ki da ciy mott li nga moom yonent bi alayhi salaam noonu na jaam bi bu takkee soxna xaaju diine mat na na ragal yàlla ci xaaj bi ci des jaam bi bu dencee soxna xaajub diineem mat na na ragal yàlla ci xaaj bi ci des ida tazawaja al abdu faqad istakmala nisfa diin falyattaqillaha fi nisfi l loolu ni ko boroom xam-xam yi firee mooy dañoo wax beneen xadis ko firi yonent ay sàndaa waxoon ne ku ma téyal ñaar maa ko warul aljanna ku ma téyal aw làmmiñam ak awraam maa ko warul aljanna téyel làmmiñam ba du ca wax bu safaan téyel ma awraam ba du ko du ci ruur tool jàmm yonent bi salaam nee na kooku maa ko war lu aljanna xadis bi dafa ñëw di wax nag ne kon ku am soxna mel na ne téyel nañ la sa awra ndax boo goree danga yem ci soxna kon doo jàll feneen kon su boobaa sa genn wàll ñoŋ na mu des làmmiñ wi kon na góorgóorlu ci làmmiñ wi sàmm ko bu ëllëg nga dem àjjana loolu tax nañu xam ne denc soxna am na sol ndax boo ko defee rek mel na ne cinquante pour cent yi ñu doon wut ci sa diine mat cinquante yi mat na léegi nag góorgóorlu ci cinquante yi ci des denc soxna it mooy wenn yoor wi ñu santaane ci diine ngir nit ki di faj soxlaam jëm ci wàllu jaxasoo ndax ci soxla yi nga xam ne du sikk nit ki bëgg loolu ma wax ne sax safaan bi la ñàkk a sam xel ñàkk jëm ci wàll googu xeetu manqué la ci doomu aadama doomu aadama ju matee rek ni muy soxlaa ndox di ko soxlaa aw ñam noonu lay soxlaa jaxasoo léegi nag dañ lay yar ci diine nga jaarale ko yoon ba doo ca def loo def doo ci ëppal doo ci yées nit ki nga xam ne ak aw ñam danañ ci lekk lu ëpp danañ ci ëppal dañ ci yéesal waaye dara jagu ci yem ci digg bi muy li kon nag denc soxna ci la bokk mooy wenn yoon wi ñu sàkk ngir nit ki xarisa jinsiya bi na ci moom mu man koo safar mu mën koy màndal weneen yoon wu nit jaar yoonu bàkkaar walladina hum li furujihim xaafizuun illa ala azwajihimu aw ma malakat aymanuhum fa innahum gayru malumin dajaa ni bu taxee wara dalik fa ulaayka humul aadun ñaari bunt amoon benn bi tëju na denc soxna walla ak moomeel moomeel amut fii bu fi mase amit amutu fi denc soxna moo fi des kon ñi nga xam dañuy sàmm seeni bopp sàmm seen awra lu dul ci seeni soxna walla ñiñ moom wax ne ku weesu loolu yaa ngi bokk ci ñu jégg dayoo yaa ngi bokk ci tooñkat kon amut ween yoon wu nit di faje soxlas boppam ci wàllu jaxasoo wudul am soxna beneen bunt boo jéem ubbi rek bunt bàkkaar la nit ñi fo ci seeni cër ak yépp bàkkaar la ci mazhabu Malik yooyu dafa xaram yoo xam ne ilimaan képp ku mu dégg ne war nga ko def war na laa caw duma la ba nga bàyyi ndax dafa dugg ci biir fa ulaayka humul aadun denc soxna am na solo mbokk yi ndax day jur ak jote day bennale ay nit day bennale ay njaboot te xam ngeen loolu ci jublug lislaam la bokk inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu yàlla daa bëgg nit ñi di xamante di jaxasoo di jëflante bokk na ci bunt yu koy may nag dañ soxla barewaa koo xam ne ñaari famille yoo xam ne dencante moo tax ñu mel ne famille yu mustatagoo te lu jiitu ñuy dencante mosu ñoo xamante loolu jàpp naa ne kenn ku nekk ñun mën nga caa joxe misaal ci ñoo xam ne dañoo ànd jaxasoo ba nekk mel ne benn famille te te ci soxna rek ma waral mu mel noonu waaye njëkk dencante di am ñooñu xamante wuñ jaxaso wuñ te diine nag daa bëgg nit ñi di xamante lu xamante bi gën a yaatu moo gënal diine ndax moo jur jaxasoo moo jur jàppalante te yàlla li mu bëgg ñu ko koy defal